waaw loolu bañ ko gisee déjà de un metti nañu trop li olof Njaay di naan booy jigle sangaay day fekk nga set ñun tey amaana boo leen tëjee bu waat yi tëj baar yi restaurant yi ñu ne dajaloo dootul am kon li ndongoloo daan waaye borom doole yi ay kay kon borom doole yi rek kay demalante kon new di doole yi fu ñu jëm. wala leen di tere kay dañ di tere waale lépp une bonne fois pour toutes ñi ci kaw ak ba ci ñi suuf xam nga la wax loolu moom jéegi jéegi na dayoo rafetul tey rafetul suba. loolu noonu noonu noonu nga xam ni mooy seen teewaay boobu ñuy force ñu naan dajaloo la du dajaloo ah loolu tamit buñ ko gisee tamit jeunes yi am na ñoo xamante ni mun nañ ko def royukaay def ni ñoom comme que ay kilifa lañ teg si ñooy autorités yi ñoo ne ci kaw nañ wane bon exemple daal loolu rek laa mën a wax. man de ni ma ko gisee. d'une certaine façon de gérer le, le, euh, cette, cette, cette maladie d'une façon un peu négative ndax ku am bopp am fulla doo dugg ci loolu lii mi ngi nii kenn du ko werante moytu leen yow sa biir kër sax yaa ngi moytu say doom wax ma la nga dajale ay nit ku nekk di foog ree mel ni dara xewul loolu erreur la nit ku baax du def loolu nit da nga am fulla sa bopp bul la waxul sax mais nga gis ni mi ngi di rey nga jël say matukaay boo ba demee ba xam ne mbir mii mënul a ñàkk nga dem salaamaaleykum si la ndigaale jaajëf ñibbi doo fay toog jàll jeex na takk. dëkk bi kumba am ndey ak kumba amul ndey kenn weddiwu ne feebar bi amul mais tamit comme que dafa am ba nu jël ay daan teg ko ne mesure barrière yi nan ko respecté kon ñëpp la war a maase la ndoo ah. amul kii amul kii mais ba si masque yi sax yow tey jii policier bu tasanteeg yow nga nekk benn doomu ministre wala benn doomu avocat yaa xam doomu li nga doon si autorité bi boo leen demee ba police moom bu wootee téléphone dañ koy bàyyi te pourtant man sama genre yi nii tey jii su ma takkul su ma yeggee police fay rek moo tax keroog bërki Dembo Ndiaye ñooñu fi eh, deewoon ndax problème doo drogue sunu borom mooy àtte parce que ay borom doomu doole lañu. yàlla sunu borom mooy àtte gis nañ fi ñoo xam ne ay autorité lañu ñu tuddee leen doom seeni soxna ñooy woote ne def leen lu leen neex tey xew bi sunu xew la te pourtant bu ñu ko tuddee woon benn faamara bii nii di wax bu bu sëqatee sax laa la wax police ñëw fekk ko fa bërki démboo Njaay golf lan doon dëjal sama ndijaay mais dëj bi mujj nu ko yeggalee def juróom-ñetti fan ndax police moo fa ñëwoon te pourtant am na ay autorité yuy dee yoo xam ne ne dëj bi boo fa demee dafay jal bi jalaajoo loolu moo fi war a jeex si dëkk bi néew nu leen feebar bi amul man boo gëm naa ko wante tamit na ngeen yemale ñëpp boole ñëpp ñu doon benn. man bi ma ko gisee si saa si dama ne non lii moom c'est pas normal parce que ñun déjà ñu ngi wax waxi màggal dinañ ko def wala duñ ko def gàmm dinañ ko def wala duñ ko def te nag loo gis wér gu yaram ko gën boo amul wér gu yaram doo màggali boo amul wér gu yaram doo gàmm ji kon wér gu yaram moo moo njëkk kon ñoom bu demee bay def loolu. franchement teggi nañu yoon moom teggi nañu yoon te nag bu fekkee dëgg la ñoom mënatuñ ñoo wax naan takk leen masque wala bu leen ko takk. mais ñun baadoole ñun ñoo ci gën a sonn loolu noonu moo war a jeex si dëkk bi dëkk dañuy xool nu muy jëmee kanam mais duñu xool nu muy delloo ginnaaw wala ñuy xool kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu moo fi war a jeex ñu dimbali nu si loolu noonu nan wax ak doomu autorité yi doomu ponkal yi fi nekk. ñun nga xam ne ñun ay néew di doole yi lañu sañu noo sëqat sax te pourtant doom ponkal yee ngi def lu nekk fii lan wax ne ne léegi bu fi kenn defatee mbumbaay te pourtant mbumbaay bee ngi continuer ba tey ku fi ñu woo police te pourtant boîte yi bërki démboo njaay lan ko tëj boîte yi ba mu tëjee yàggul bërki démboo njaay lan ko tëj yooyu noonu yëpp mu ngi si dëkk bi te mënuñu koo wax li fi nekk moo bari li fi nekk fii nii ci dëkk bi dafa bari gouvernement bi moo wara a nu muy doxalaatee waat ak askan wi bu baax le chef religieux la mu jéeg ba mu wàccee liggéey Ndiassane Nigéria la gars yi jóge ñëw Amérique la gars yi jóge ñëw loolu ko mën a tuddee amul autorité dëkk bi amul dut nan nan ko waxta de amul autorité patron da nga naan lii la mu jeex benn wax ngay wax kenn dootu si tellu mais ngay wax di waxaat di waxaat gars yi dañ lay yëpp loolu kese la waaw mi ngi mel ni nii gars yi ngi werante problème mu tuuba dina dem ak du dem loo xam ne neex naa gérer nañ ko gérer yaa ngi ña nekk Touba bu mag màggal bi jotee ñun ñooñu màggal foofu bañ a génn ku demul woon nga toog sa kër fii bañ yóbbu fen mu jeex tàkk. bari na ñun dañ koy dégg si rajo bi barki Dembo Ndiaye fii nii lañu wax ne jàpp nañ fi Alassane Mbaye jàpp fii ay Waly seek mais loolu dégg rek nga ci ama ah, amul poursuivre sax pour ne ne ñoom ay borom doole lañu loolu du fi jóg loolu moo fi nekk. bu buñ koy wax fu mu toll nii mënuñu fee jóge fii ba suba fii la ñuy taxaw di ko wax ci micro bi am na ay ñeneen ak ñeneen yoo xam ne feeñul am na yoo xam ne journalistes yi sañuñu ko wax sax ci rajo bi ndax buñ ko waxee ñoom seen bopp seen yaram du ko fekkee wala seen poos du ko fekkee yooyu moo war a jeex si dëkk bi ana ñun fi doon wax si rajo bi fii nii ñoom Alsaan Mbaye bu nu jàppoon coow lu bëri li boobu noonu ak ay ñoom waali ndax xew mujjul fenn mujjul fenn du mujj fenn lépp lépp ci baadoo lay këpp waar rek. moom fii Sénégal moom ñëpp xam nañ ni mu demee borom doole yi c'est entre euh, ñun néew di doole c'est entre nous di ñaan nag di lancer tamit message euh, son excellence monsieur le président Macky Sall di ko wax ne ñun ñu ngi ñaan bu fekkente ne comme ni ko gars yi waxee rek limite ñun limité ñun nombre tey resto bu ñu la nee. pour quatre places la ñu ne sax pour deux personnes la d' accord nañ loolu plage aussi ñu surnombre affaire ñu xool nañ koy jaarale si yoon quoi man daal loolu laa gis di wax gouvernement bi tamit waaw gars yi artistes yi tamit <laughs> waaw na mën nañ affaire yi de soxna si ndax lendemain tabaski ba léegi ñu ngi nii Mbëkk Saalum mu ngi si Elas Keita man ci Pape keneen ak keneen muy fanaan te ñun saa saa ñun suñuy mag lañ suñuy xarit lañ bu demoon soirée ñëw dañuy jox te instant bi nii yaa ma jëndee kaas day met laa leen jëlalee woon fi nga xamante ne moo di Médina ma duggoon ci biir rek di xalaat di taataan xalaatu askan wi naka la ñu gisee autorités yi nga xamante ne ñoo ñu tere daje yi ñoo ñu tere yenn mumbaay yi ñoo ñu tere xumbaay yi ñoo ñu tere ngénte yi dëcc ak mariage yi ñu gis euh, semaine bii ñu génn nii. am na xew-xew boo xamante ne am na ci ñi nga xamante ne ñoo bokk ci gouvernement bi am na xew-xew ak daje yoo xamante ne gis nañ ko ñun ñëpp niñ ko gisee askan wi ku ci nekk gis nga ko loolu lañ doon waxtaanee tey dégg nga nag li ci askan wi wax ku ci nekk gis nga ci sa xalaat lan la ci di leen jox dig daje beneen yoon incha allah comme niñ koy defee saa ne sur MTV waaye bu leen fàttee abonew wu bu leen fàtte tam bés li nga xamante ne moo di cloche de notification bi ngeen nekk ñi njëkk jot suñuy vidéo nee naa bu amee solo Medina TV la HD yëpp yëpp